asalaamaaleykum mbokki internet yi donc wa tay wa Allo Dakar TV ñoo ñewon seet si néew ju doole yi fii ci cimetière yof cité Djily mbay waaw duñu fenn duñu sàcc duñu lëbin leg leg way way yalla ñew fi rek jox nu rek mu yobbu ci kër yi. est-ce que waan bi si ngeen di dundale seen njabot njaboot. ñuy def boo mu dara bëgg ni kay bo amé dara jox ko sa njabot xam nga ci lañuy dundu hmm lañuy dundu est-ce que tay li ngeen ni am par journée dina dundal seen njabot njaboot. dundal mënu ko dundal xam nga li ñuy fortaat bi mënut a dundal njaboot waaye nag lu la nga am do ngay man jox nit ki li mo am lay démé marché li nga am ngay mëna jox sa njaboot mëno ko jox lo loo amul te do sacc do fen do dag sa voilà. parce parfois tay di nga xey ben jour bo xamantene do am lo yobbu sa kër. waaw waaw da ngay leg leg nga xey ba wacc do fi am dar paas bu la delo sax do ko am. Mhm. ndax am na ay autorité yu fi jotta jaar ngir jappalé len wala. ben jaar ben autorité japp jaar fi amul waaye ya gëm yalla yi rek ñu yërëm yërëm julit yi rek ñofi jaar leg leg ñu jox lu dara rek ñu seddo jaajëf maaleykum salaam rahmatulahi noo lay fay di la wax sanuñ soxla rek xamuñu dara maam Awa Cissé waaw ah, maam Awa maam Awa Cissé noo ngi fii ci cité Djily Mbaye ci àngal bi. bëggoon xam ñaata at nga am yow yaay bu. ah samay at ëpp na ñett sama seex a nga neex seex baa ngay toog ngi ne ngi ci ginnaaw. mooy sama seex boo demee nga laaj ko moom at yi ma am dégg daal maay maam awa ñu bëggoon xam yéen seen situation maanaam fii loo leen fii def fii leen nu fiy def xanaa xaw noo am dara rek tax nu toog fii ñu ngi nu fiy romb di nu sorox saaku ceeb lu ne ñu dinu ko fi jox rek nu toog fi bu nu xëyee ñëw toog ba ngoon ñu ñibbi moo la fi bàyyi nag. ñun néew doole yi bu ñu dimbali woon toog ci mbedd mi kenn dimbali wuñu waay loolu la kenn dimbali wuñu de bu ñu xam nga duñ toog fi kenn xam nga toogaay bi neexul kenn bëgg ko waaw waaye nag boo amul pexe nooy def toog ci mbedd mi buñ la joxe sa eh, téeméer sa ñaar téeméer nga dow ñibbee ak moom. téeméer fan ñeent fukk xam nga loolu day neex na waaye yorul kër yorul suñu njaboot de maa ñeen ak ñeenti sët ca kër ga te seen bàyyi liggéeyul mooy sama doom liggéeyul dara man maay faratu fii rek di yóbbu ñuy lekk liggéeyal xayma yal na ko yàlla yeggale kontaan naa ci yéen kontaan naa ci yéen yal na ko yàlla yeggale jërëjëf képp ku ma bëgg a jàppale ma ñaanal ko ci yàlla fan mu gudd sax ci palaas bi yàlla jox ko njobootug jàmm ki ma bëgg a jàppale naa ko yal na ko yàlla dimbali ki ma bëgg a jàppale yal ko yàlla dimbali saxal ko ci palaasam jox ko njabootu jàmm ak fan wu gudd ak wér maa ngi ci téeméeri at fii maa fi mag de kee ngeen dëkkal maa ko jur borom kol gu weex gee ngi ci téeméeri at meer Siise maam maam Adama maa ngi ci téeméeri at bu bii yeggee muy téeméer ak benn. maam Adama maam Awa dégg ko ngeen demee ngi ni leen lañu te amuñu dara ñu ngi toog fii ci ngelaw li rek di dara lu am yóbbu ko kër ga. dégg nga. daa am ñu leen yaakaar. Ah, ah, waaw ah am na ñu ne yaakaar kay de sunuy sët a fa ak sunuy doom kii ji doom yi la kii ci doom yi <laughs> la. day képp ku la bëgg képp jàppale loo koy wax. képp ku ma bëgg jàppale ma loo ma sarax te mu baax ma yóbbu ko ca njaboot ga rek waaw ngeen seet te sarax ko ana maam Awa ana maam Adama seen doom nga nee. dañ la sarax rek nuyu bu ko ca